salaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu leen di xaar ci tontu yi sëriñ bi bisimilah. Euh, ci kër gi di rafetlu aussi di bokk ak yow jotaay yi mm-hmm. kontaan ci lool lool ñu nar ñëw nag jukki quelques temu actualité yi nga xam ne nii fu mu toll nii lëmbe na jamono hmm. ah, fu ñuy njëkkee nag mooy euh, ca Medina Baye ak euh, làkkub ki nga xam ne nii moo fa nekkoon xalif bu bu Medina Baye di sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane ñas doon jàmbaaru lislaam yan kàddu nga mën a sànni ci moom jërëjëf xa wax rek inna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hmm. tabaaraka lazi bi yadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir allazi xalaqal mawta wal xayaa kàddu yi mooy rek suñu wajur la woon suñu kilifa la woon ku ubbeeku la woon ku bëggoon xam-xam la woon te bëgg ñoñ xam-xam ku am fit la woon tamit ci lu diine ji soxla suñ koo xam ci yox yox wala dellu ginnaaw xalifa la boo xam ne xilaafa gu yaatu na lool ba demee bitim réew ba gis ñi nga xam ne moom lañ doon déglu ci wax ak jëf danga xam ne xalifa la boo xam ne xilaafaam yaatu na lool tabaarakallaahu ñu ngi koy ñaan yàlla na suuf sedd ci kawam suufu kawlax sële mu tëdd yàlla na doon suuf soo xam ne dana woyof ci moom waaye di ñaan yàlla na àpp sore yàlla na borom bi dugal ko fii fasihi jannatihi yàlla na dajeek mag ña ca al fayda tabaarakallaahu yàlla fay ko te euh, taas ñu ci barkeem. kaka mhm. wuutu nag di Serigne Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima ñas ñu koy ñaanal itam yan bi woyof ci moom. waaw moom day dañu wax ne xalifa la boo xam ne moom itam intellectuel la mhm. jànge na Égypte mhm. li doomi soxna yi war a jàng jàng na ko bi mu noppee dafa ñëw di ci liggéey di ko jëfe nekk na directeur ca daara ja nekk foofu école ba di ko doxal ba macha allah te nag moo nekk xalifa. ñu ngi koy ñaanal borom subhaanahu wa taala defal ko ndam ci xilaafa gi te nag yàggal ko ci naal yi nga xam ne moom la xalifa bii génn àdduna naaloon yàlla na ko yàlla jàppale ba mu mën a àggale naal yi yëpp tabaarakallaa ñu ànd ñun ñëpp di ko may nopp te ànd ci liggéey ba jërëjëf euh, oustaz leneen li nga xam ne ni lëmbe na réew mi jamono ji di cong nga ñu amaloon ca journal Les ñoom nag lu ñu leen di reprocher mooy ne dañoo bind ne euh, sëriñ Moustapha si dañ ko testé positif ci mbas mi nga xam ne nii mooy euh, yëngal àdduna jamono ji mm-hmm. ah loolu waral ñu ne daal ay nit dem fa démb song fa yàq fa ay matériel yu takkoo takku mm-hmm. coow loolu yow nan nga ko gisee ni ma ko gisee jërëjëf ci laaj bu am solo bi mm-hmm. xam nga sunu réew daa am ñu tuddee ay sëriñ ñu am ñun terme yu ñuy waxanteeg sunuy sëriñ wax naa ko sànq ñi ma seet si woon may leen ñun suñu dëkk kenn du wax sëriñ bi day jooy kenn du ko wax suñu dëkk kenn du wax jabari sëriñ bi dañ ma baal ci terme yi ma wax waaye dañu jàngale suñu suñu réew kenn du wax sëriñ bi yeewoo gut dafa am terme yu ñu jëfandikoo terme yooyu bu ko journaliste yi di jëfandikoo mën naa am yii mën naa ñàkk mooy sëriñ bi dafa tawat kenn du wax dara sëriñ bi dafa wéra di kenn wax dara mais am na baat boobu boo ko génnee dafay am ñi muy ñu muy comme ni ngeen ko waxee te duma leen jàngal journalisme ndax ci ngeen nekk waaye ci wàllu communication daf ci am na jógee benn bés ñuy añ ba mu yàgg ñu tudd seen soxna am ku ne jabari jabari diw la añ ba daa yàqu ndax kooka dafa tibb ci ca lañ doon añee xëpp ci kanam ne ko loolu kenn du ko wax donc ñu ngi lañ ci massawu waaye itam nag di bàyyi loo xel ci baat yooyu nga xam ne léegi léeg muy génn ci penc mi ñi nga xam ne ñoo jóg di faje noonu ñoom tam bu ñu sañoon bu li lu mel ni xewee ñu ànd ci ak sago rek dox ndànk rek ba loolu bañ a tee amati waxin yu bañ a amati moo gën jóg rek daal di faj yëf yi te itam ñi koy dégg itam nañ ci di bàyyi xel bu baax a baax ñoo ngi ziar euh, sëriñ bi Euh, sëñ Moustapha ak waa daayira ba yëpp al mustarshiduna wal mustarshidaati moom partie bi nga xam ne nii moom la jiite génne nañu daal wax ne daal moom mu ngi ci jàmm il se porte bien dara jotu ko ci seen ci génn bu ñu def démb te aussi tey ci information ñu am am na juróom benn ci ay jegeñaaleem nga xam ne nii njott nañ ne ñoo amal cong bi gendarmerie teg na leen loxo kon enquête bi mu ngi wëy alhamdulilah mhm. donc ñu ñëw ci mbas mi nga xam ne ni moo nekk ci réew mi aussi mhm. ak li nga xam ne ni ñëpp constaté nañ ko muy relâchement sénégalais yi mhm. donc yow bi ngay dugg si fii li nga dugg ci studio bi moo tax nga tekki sa masque mais yow ñu bëri doxalewuñu ni yow ci mbedd yi donc loolu aussi responsabilité kan la euh, responsabilité responsabilité partagée daf ci am lu état moom fexe ba ne def leen ñu def moom moo ko war a yor fexe ba ne bàyyi leen ñu bàyyi état ko war a def lu dëkk li ci des nun la nun ñu dëkk penc mi noo war a def bu ne ñu def leen ñu def bu ne ñu bàyyi leen ñu bàyyi góorgóorlu nag ci loolu ñaar yi daal bu amee mën naa am mbas mi teel a ñibbi bu amul nag dafay nekk di kalangaatu rek ak jàpp ci ci barab loolu yomb na sa sëñ bi àgg sa kër raxasu loolu yomb na di takk masque loolu yomb na di parce que man su may takk masque damay wax ne ku dem bi may ñëw senegal set ku dem jël naa feebar bi ci mbedd mi ni mu war a def kon mooy naa fexe ba bu ma fi ñëwee duma ko jox kenn ma takk masque am de loolu yomb na lool waaye sunu penc nag dañ noo bàyyi ci def leen ñu ñàkk def bàyyi leen ñu ñàkk bàyyi ndax réew mii nga gis rek réew moo xam ne oto yeeg sareet yeeg nit ñeeg fu neex waa jaar fu neex waa jaar parce que li ñu def ci dëkk bi fu nekk nii nit ñu duñ jaar ci kaw ci suuf la ñu jaar te dañ mu jàgg dañu arrêté oto yi jàllal seen bopp donc yu mel noonu nag bu xewoon démb ba tey bu ñu ñëwee rek mu yomb bu xewal démb nag bu ñëwee tey day jafe lool. est-ce que état bi feebalul kon ci suñu réew. ah mën naa am de xaw ma tudd ni ñu ko tuddee waaye daal. sanction daal daa war a am ci kii daa def lu ñuy tere. nañ ko def loo xam ne dana xam ne lii dañ koy tere ñëpp xam ne lii dañ koy tere. jërëjëf waaw ñu ñëwaat ci beneen coow bi nga xam ne ni aussi leneen la muy ci jikko yi surtout ak ci série yi nga xam ne ni daanaka léegi moo xew ci réew mi bu ci mujj surtout di infidèle ak coow lu mu yëkki mhm. donc muy ay série yi nga xam ne ni buñ ko dawalee ci semaine rek di nga gis ne dañuy am dañuy passé sax millions de vues muy ay série yi nga xam ne ni sénégalais yi ñu ngi koy suivre bu baax a baax mhm. donc yàgg ngeen jooy télénovelas yi mhm. dëppoowul ak suñu su suñu suñu nekkin suñu dundin mais am na yi nga xam ne ni sénégalais yi ñu ngi koy créer mais aussi day jur coow te lu ñu seetlu aussi mooy ne du faral di dëppook lu ñuy dund. waaw na sax day yàq jikko yi loolu noo ko gisee. loolu dañ fee amoon lu ñu tuddee sénéra. Mhm. ci yoon. Mhm. waroon nañ film bu war a daw ci télé. Mhm. ñu yët leen ko. ñu ñu ñu commission bi càmbar ko seet ko. bu dëppoog suñu aada yi ñu bàyyi leen ñu dawal ko. bu dëpp tam ñu téye ko. donc lu fi mën a daw rek mhm. day mel ni ci seen responsabilité bu ëllëgee suñu borom da leen koy laaj mhm. lu dëgg mhm. dañoo war kon ñoom ñi nga xam ñoo ñooy sénéra bu bu bu film amee bu mën a doon balaa daw ci benn télé wala ci benn rajo ñoom nañ ko yër buñ ko yëree ba càmbar ko ni lii wuru fee daw ñu arrêté ko loo ko may ku ñu ko yër nga dawal ko parce que euh, produit intérieur wala produit extérieur ñaare boo koy teb télé te jox ko jox ko sponsor mhm. mu dawal ko mhm. waaye li yàq suñuy jikko nag ak suñu diin ak suñu ngor ak suñu jom war nañ koo seet ndax am na tel am na am na théâtre yoo xam ni wane wane wunu mhm. yoo xam ne wane te dañu war a am théâtre yoo xam ne daf nuy wane ñu xam ñun ñooy ñan fan lañ bokk lan lañ doon lu ñuy bañ bu nekk bu amee rek jàmm na ñooy su ko amul nag euh, fi ne lu ay for rek sànni te itam léeg-léeg nit visé ci loo xam ne lii baaxut da yàq jikko da yàq ànd mën naa yàq jom tamit. Mhm. te am na ñu ci ñu ciy banaliser ñu koy ragal muy banaliser góor jigéen nag yi ni mel infidélité yi ni mel donc est-ce que du dem ba mu ñu banaliser loolu ci loolu ci réew mi est-ce que doonul projet bi. ah à en tout cas jar naa bàyyi xel de. Mhm. jar naa bàyyi xel de man daal général lay joxañ baaraam. Mhm. ne ko bàyyi leen xel ci théâtre yi di dem. sëñ bi bu njëkk lu ñu amoon. Mm-hmm. école des arts. muy jàngal nit ñi luy théâtre mm-hmm. théâtre ci scène bi lan la mm-hmm. euh, film lan la ñu jàngal ko nit ñi film bu doon série lan la su tàmbalee ba ni mu jeexee war na révolter suñuy aada changement yi am ci leneen am ci waaye fi nekk ni nun théâtre yi bu ñëwee li ñu solo nun nun la solo loolu du loolu du solo sénégalais déedéet loolu loolu duñ ci gis suñu bopp waaw liñ ci gis rek mooy ay nit ñoo xam ne moom daal li nu bëgg a def nii mhm. war naa leer nañ ñi mbooloo mi waaye war naa leer nañ ñu ne leen nii na jàll wala bu mu jàll jërëjëf